muy bind ñu ne ko bindal mbàkk bindal bukki bindal mbeng mënta wax ba bind mi wuute mbàkkeeg bukkeeg mbeng ñoo bokk nu ñu leen di bindee Cheikh Blaat ne luy tax ñuy ràññetle mbàkke bukki ak mbeng ba boo liiree xam ne lii mbàkke la lii bukki la lii mbeng la mooy masque te nee na masque ji mooy jëf ji kon bépp mbàkke mbàkke buy jëf-jëf joo xam ne dafay fay lislaam day saboote diine dafay gàllankoor yoonu murit bukki nga doo mbàkke mbàkke bukki nga ba pare ngeen xam ne ak mbàkke mbàkke aw sant la sant kenn mënu cee gën nit gis ngeen faaw ngeen am esprit taalibeeb sëñ tubaa boo xam ne da ngay dogu ci sëñ tubaa dogu gi mooy bu la kenn xañ sëñ tubaa amul kii que ce soit ak ku la mën a jur parce que ca kanamu yàlla ñëpp ay jaamam lañ yonent bi salaa salaam jaam la ko yàlla doon wooye sama jaam sëriñ tubaa danaan ñaan yàlla jaam googu mu defal yonent bi mu doon ko ba mu reconnaître ko nangu ko nag ko dimbalee sarax ko ko sëriñ tubaa mbindam yëpp day ñaan ne jaamu yàlla la fu muy présenté woo jaamu yàlla la dongab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la moom laay liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñun ñi koy yaakaar dafa ñu wax lu leer yàlla kenn mënta am ngërëmam lu dul ne dangaa baase wu ci alquran ak sunna ku ngeen fi mën a dégg mu mën fee tegg alquran teggi sunna jàpp ne mën na koo may yàlla nekkul ci dëgg ci kàcc la nekk loola alquran a ko saxal yonent bi sallallahu saxal ko Sëriñ Tuubaa jàngale ko Sëriñ Tuubaa wa sunnati lati hedani saratul kulla wal qalbu qaasha sama digganteeg sama borom maa ngi dox jëm ci jaare ko ci alquran ak sunna ci la ma sama borom gindee ku ànd ak man alquran ak sunna laa la joxaj ngir nga jaar ci waxaan ne bihi saala xam mi oyna amsaktuhu hudan zahdi bihi nafsi wahdi bihi saaba Sëriñ Tuubaa nee bi ma jëlee alquran def ko muy sama njub di référé wu ci alquran la yàlla daña lépp luy am njàqare ci man alquran ma gindi te sama borom di gindee samay àndandoo waxaat feneen ne qur'aanu rabbi laa abqi bihi badala bii aquulu ila rabbil waral ulama wax ne alquran yàlla alquranul karim ji tedd ji amul lu ko mën a féete kaw fi man du ma ko weccoo ak dara Sëriñ Tuubaa ne ci laay wammatu wammat ci mboolem borom xam-xam yi jëme ci yàlla kon nag ñu lay tudd di tudd Sëriñ Tuubaa ngay de caay-caay dañ la fee war a romb ni ñukk ni yàq bu forox te xam ne tekki woo dara yaa ngi ñëpp ñiy gàllankoor yoonu murit ñi ñuy wooye ay seex lenn nag ci ñoom seeni njaboot ñi ngi tudde saboot yoon wi te seex bi ko Sëriñ Tuubaa daa def danaan yor ay mag tarbiye leen jàngal leen xiif jàngal leen mar tënk leen ci alquran tënk leen ci nangoo sonn tarbiye leen sellal seen ruu sellal seen bakkan ba adduna buñ ci soxla lu toll ni dammit we bu ñu demee ba gratte ba àgg fi ñu war a àgg mu door leen a seexal àgg ci kum ci seexal keneen ñëw mu jël mbooloo toppal la ngir li mu def ci yow nga man koo delloo ci ñeneen xam ngeen ne demoon na ci misaalum sëñ Balla Fally Dieng sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu nit ñëwoon na ci moom ba a taxaw moom ngir mu defar ko sëriñ Tuubaa ne ko defar taxaw la laaj te amatuma jot waaye defar naa Balla Fally Dieng taxaw la moom mu defar la kon ak seex loola suñu demee nag ba jël ko ak seex wala ak ciriñ di ko commercialiser loola yëpp nit la maanaam gis nga jàngal xuraan ak jàng xam-xam ak ñu seexal la warulaa tee liggéey warulaa tee sonn tey nangoo liggéey ak sonn teewul ñi war a jox addiya danañu la ko jox ana kan ci doomi Serigne Touba yi ngeen xamoon ku jël ak dundam yëpp ku ci laaj addiya wax leen ma kii wala kan la doomi Serigne Touba yëpp dañoo nangoo woon a takk seen ndigg di liggéey di def ci seen bopp Serigne Saliou mi ngi tàmbalee ci mbaam di bay di dem ba mu yàgg mu yor ay fas dem ba mu yàgg mu yor ay nag dem bam yàgg mu yor ay tracteur ci moyenu boppam moom sëriñ Saliou radiyallahu anhu tàllalul kenn loxo dafa tàmbalee de zéro ba àgg ci kaw sëriñ Abdoulah ñëpp xam ngeen fi mu jaar ci wàllu liggéey Cheikh Mamadou Fadal xamoon ngeen ni mu daan sonne ci lu am di ko bay muy jur dara mu koy jébbalaat sëriñ Tuubaa mës te jël ñàkk jàmbur di ko dundee Cheikh Mamadou Moustapha Kasari tey bu ngeen demee fii ci Daaru Xudus xam ngeen ne bëri na lu fa nekk ci alali sëriñ bi bañ koy miraas Cheikh Mamadou Moustapha moo ko jënd ci alale boppam moom ko ku xudoo tey histoire yu bëri nit ñi xamuñu ko waaye loo leen fa dégg njabootu sëñ Mamadou Moustapha geek moom tax seen bàyyi ko jëndoon ci tourage sëriñ bi ngorowu sëriñ bi kon ñàkkat doo doon ab sëriñ tekkiwul la waroo liggéey doon ab sëriñ tekkiwul la da ngay jël bakkanu murid yi di leen foowee ci ay tappale ak i caaxaan loolu amul bu ñu woyee di bu ñu toroxal suñu bopp nañu xam ne suñu suñu digganteeg sëñ Tuubaa taalibe bépp sëriñ bu képp ku mu gis mu nekk ci li Serigne Touba bëgg daan ca jaar di ko def nañ ko jàppee sunum Serigne Touba kuñ fi tudd naan mbàkkeek faal ak busoo koo mën a doon nga teggi fi njàngalam Serigne Touba ñu teggi la fi Serigne dafa am ay critère taalibe am ay critère ku fi doon ak yaafus nag jàngoo lislaam jàngoo diine jàngoo njàngalam Serigne Touba ku la wër te jariñoo dana toog ci sa kaw di la jariñoo ngay liggéey bàyyi sa ndey bàyyi sa baay di ko jox muy takkee jabar di jëndee oto di ko jëndee kër di ko jëndee ges neen ngay taxawaal doon am mandat te doo am ngërëmal yàlla Serigne Touba daa xeeboon adduna bàyyi adduna aqbalati dunya ilayya qablu wa bixtuha wa saala anni kablu dafa wax ne adduna jublu na ma ànd ay bagaasam Serigne Touba nee na ma dummooyu adduna waaye jëng bi saytaane daan jëngee nit ñi muy jëngu adduna bi nga xam ne ku yàqule moo la yàqal saa daggal ma jëng boobee kon nag bu ñu nangu kenn di ñu fooye buñ kon nangu amul kum mën a doon Sëriñ Tuubaa jàngal nañu ci nëx jul xadaay xala aaj nee na ñaar la nit di gënantee mooy xam-xamu diine ak nangoo jaamu yàlla fala nit ñi wuute wa ahlam bi annama tafawutul wara fil ilmi wa diini yakunu fasbira maanaam ci xam-xam ak diine nangoo jaamu yàlla nangoo sonn ci lislaam nangu ko gëstu ci la nit di gënee nit waaye kenn du gën ci nit diwee sama ndey wala diwee sama baay ku la mën a jur mu jariñ lan yàlla tànn na ñaar ci ay xeet ci yonent yi fi jiitu woon seppi ci ñu leen jege toroxal leen darajay mursal ko yàlla yónni lu ko gën a kawe yonent yàlla nuux yonent yàlla lóot jàng ngeen seen ay histoire nuux alayhi salaam yàlla jël na doomam alal jël soxnaam alal lóot kasaalik kon yaakaar naa jege ko baax su doon tax a gën kenn doomi ay yonent duñu torox Serigne Touba jàngalul kenn ne bokk ci man tax na nga gën kenn wala nga raw kenn d'ailleurs jàngal na Cheikh Mamadou Fadal kenn du doyloo ab yax bu rëy diwee sama ndey diwee sama baay kenn du ko doyloo ku la mën a jur te baaxuloo jëfoolu baax tekki woo dara su fekkee sagaru nit nag bu jëfee dara ñu ne ab taalibe la xas ko songu ko te bu ab sëriñ jëfee dara ñu ne pat naa féq la kenn moomuñu yàllaa nu moom yonent bi mooy sunu yonent sëriñ Tuubaa mooy sunu wéeruwaay képp koo xam ne suñu digganteeg sëriñ Tuubaa da nga koy ñagasal ak koo mën a doon dañ lay yemaleeg nopp su jamono amul kii que ce soit bépp taalibe bu ci topp koo warul topp mu lay fooye di fooye lislaam da ngay torox toroxaali ànd ak moom yomal xiyaam doo gis sëriñ bi sëriñ Tuubaa nee na ku ñuy ci bokk di ma tudd la nga baaxale képp laa bokk ak yow waa axiru daxawaanaa alhamdulillahi rabbil alamin